bu wér kay. waaye man du nga fi nekk. ah loolu la fay demee kay mais yaa ngi booni ci xale. ma mhm. ah, moo tax ñëw naa ba jege la xam nga ah, nga. suur bi ma gisee. Mhm. suur boobu ba léegi. Mhm. Hmm, nelaw. maa ngi doon nga woo la nga ñëw. incha allah man dama la bëgg. dama la bëgg ban façon bëgg naa. non. man mii de. balaa nopp kay. sa tam parce que yaa ngi rafet ni actuellement. te ba bëgg ma noonu la gis man tam ba bëgg la. sa tam eh defal ni teggi sa loxo ba pare. am ma ne nga teggi ba pare balaa may mën a ndax ma mën a wax ak yow. maanaam dama laa bëgg. man bëggantewu ma ak yow zetementewu ma ak yow. tax yaa ngi may dégg man su ma ñëwee ci yow ne la dama laa bëgg pour fans la mais pas pour nobel. ah ah maa ngi doog a comprendre. yow nopil ak sa seede bu xosu bi ngay bubu bu ni xëy xeyna bala suba kon di nga nopi ya nga rafa su may sa yor nekku ci moo tax ndekete do dem fenn ma ngi dem yow fan nga buze duma la nopp yow nga jewo ngajewoo wo xex yow ken matu la ya nga tok fi nga tok rek puusoo dara attewoo dara ma dama ne ma ay eh, nopi la wax ya ba gis bok ma doo wuli ken ni may def te di nga yexawuli ken li may def su la neexee man sama ya neex yàlla moo waroon jàpp sa làmmiñ tëj ko benn bu bëb ji jeex nga muuma wax